assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu 1er juillet 1994 1er juillet 2024 rajo bii di Sud FM nekk première rajo privée du Sénégal am na 30 muy fanweeri at ci turu yaatal xeltu yin ma bëgga yëkkati ay kàddu jaajëfal leen delloo leen njukkal ku tudd Sud FM saxel day dem ci ne benn entité la ci groupe de presse groupe de communication bu mag a mag muy groupe Sud Communication bi nga xam ne non seulement moo ëmb rajo bi waaye boole na ci journal bu ñuy wax Sud Quotidien nekkoon Sud Hebdo à l'époque ak école bu mag bii di isik muy institut supérieur des sciences de l'information et de la communication bokk ci école yi gën a mag yi ñuy tàggate di ci forme ay journaliste fii ci Sénégal waaye ku tudd Sud sa xel dem ci Babacar Touré mi taxawaloon group bi ak ñam ko àndaloon Babacar Touré yàlla na yàlla dolli ko yërmaande te xaare ko ca aljanna ya gën a kawe moo fi nekkoon directeuru CNRA waaye moom la ñu tuddee maison de la presse sama xel nag saan dem ci ñi ma xamoon ñu nekkoon ay directeuru Sud FM bokk ci Cherif El Walid Sey yal yàlla yokk ko yërmaande bokk ci Abdoulatif Coulibaly ca analyse yu pertinente ya ca xam-xam ba ak euh, plume bu rafet bi moom yal na yàlla gën ko fee yàggal bokk ci itam Umar Diouf ci moom laa njëkk a miine émission bii di objection ay jamono mu ko doon ànd ak Issa Sall bi nekkoon Nouvelle Horizon moom itam yàlla na yàlla gën ko fee yàggal ak Baye Oumar Gueye bi nga xam ne mooy actuel directeur généralu rajo Sud FM damay wax ne nag Sud moom indi na contribution bu rëy rëy ci consolider suñu démocratie ci promouvoir liberté d'expression première alternance bi amoon ci atub 2000 ku ne xam na rôle bi sud joué woon ci transparence u élection ya waaye ku ne xam na ne sud ñu respecté seen ligne éditoriale lañu ñu ancré lañu ci seeni principe moo tax Sénégal sax boo gëmee ay principe ñu bëree bëri duñ la yomba dégg sud euh, amoon na télé waaye télé bi nag nekkutoon Sénégal France la nekkoon gàllankoor ya ca amoon amoon ca ba télé ba mujjoon tëj looloo tax ngeen doon dégg Babacar Touré ci anniversaire sud bi mujj a teewe am na lum leen waxoon neewoon na leen ñun dañu bokkoon ci benn génération marqué suñu époque liggéey nañ ba taxawal suñu journal suñu rajo ak école léegi nag ak ay mag lañu yéen génération actuelle bi yéen a war a góorgóorlu ci projet télévision dëgg la Sud TV muy télé boo xam ne Sud ñoo koy moom demande sociale la waaye nag lu jot yomb te si moom kenn du leen jiitu ci seen mbar lañ naan paaka xawma jaasi kenn du ko jiitu ci mbaram ndax héritage lañ yore boo xam ne ay kilifa ñoo koy sàmm sama xel dem ci doyen Abdoulaye Ndiaga Sylla ku mel ne Vieux Savané ay ñoom Henriette Niang kande ak ñaneen ak ñaneen moo tax siddu boo fa nekkee du lu la neex def du fu la neex taxaw itam euh, sud nag ci wàllu respecté éthique ak déontologie ñoo ci teg tànk looloo tax yàlla musala gunna leen ci désinformation mésinformation ak fake news benn bés dégg naa ci ummi Régina Samb xam nga Régina dafa saf xorom mu naan siddu mooy foo xam ne dangay am sa scoop poñe ko bëgg ko joxe ñi la jiite ñi la chefe ne la teyal rek ngay jàmbat naan waaw bu ma ci beneen organe jiitoo nag beneen rajo wala tele ci misaal joxe ko nag ñu ne la amul solo l'essentiel ñun buñ koy joxe na wér rek loolu mooy wane ne ay information yu ñu vérifié lañuy joxe ñoom waa sud waaye ñoom doxuñu ci ay buzz ki ay folklore ak yu mel noonu looloo tax sax sénégalais yi dese nañ leen a xam bu baax a baax waaw bitim réew lañ gën a xam euh, gëddëb sud waaw ci yenn institution internationale yu mag yi xam nañu kuy sud ak yeneen réew yi maa ngi dégg rekk Alain Yorombaalo mu koy wax mu ne tey ci misaal France boo fa jàngee wàllu journalisme bay ñëw Sénégal dañ naan la boo nee dem sud nga def fa stage day dana baax lool kooku day wane ne nawloo nañ leen ci àdduna bi Sénégal nag loolu suñu nattu la li ñu am mu gën a am valeur ñun duñ ko xam day mel ni waa bitim réew sax ñooñu koy ñooñu koy gën a xam et pourtant misaal maa ngi fii fii ci Sénégal néew na lool nga dem ci benn groupe de presse benn rédaction te fekkoo fa benn élément bu jaaroon sidd wala ay élément doy na ci misaal rek kan mooy directeur généralu RTS tey du Pape Alé Niang Pape Alé Niang non seulement jaar na sud def fa ay at waaye li ci gën a yéeme mooy école sud sax moo ko formé muy ISIC institut supérieur des sciences de l'information et de la communication fa la génne Moustapha Diop bii nekk directeur u Walfadjri xëy na jaarul ci rajo sud waaye école sud moo ko formé ISIC la génnee sud daal ñim formé bari na day formé bay formé ay auditeur am man moom dama yàgg a familiarisé wu ak sud ndax man déglu rajo laa gën a man ci seetaan télé gaa dinaa déglu yeneen rajo yi waaye sud moom la ma fa mën a jëlee sud rek laa ko mën a jëlee Babacar Touré mi ko taxawaloon nag nekkoon jàmbaar lool boole ci nekkoon ku modeste ku woyofal boppam daan def yu bari ci ay mbaax yu baax di ko nëbbu waaw bi mu génnee àdduna keroog la ñëpp waaru ndax biñ ko yóbboo Touba Sëñ Muntaqa nekk xalif général des Mourides moo génnal boppam jullee ko loolu doonoon loo xam ne xéwal dëgg-dëgg la ci moom mu mel ne nag héritage boobu nag moom la fi Babacar Touré bàyyi ba suñ jon yàlla tey jii euh, Baye Umar Gueye ñëw wax dëgg yàlla am pas-pas nangoo liggéey ànd ak courage ak détermination ak abnégation waaw damay wax ne ba bay Umar Gueye moom doxul ci buzz boo xoolee objection ñi muy gën di faral di invité du ay politiciens waaye ay universitaires ak i chercheurs la gën a sawar di invité nga xam ne mi ngi participer ci promouvoir recherche ak euh, euh, innovation boole koog nag woyof lool moom Baye Umar mu ngi doon wax ne trente ans yi moom euh, anniversaire bi du am ay ambiance ki folklore waaye ci dal rek daanaka li ci gën a am solo mooy wàcce kaamil fàttaliku ñu ngi doon liggéeyandool te ñu wuy ji borom bi subhaanahu wa taala waaw Baye moom ku am gëm-gëm la jàpp naa ne daal lépp lu ñuy jàmbat wala ñu bëgg sud am ko rek bu buñ jàppalee Baye jombul bis mën naa ñëw yàlla yombal ko waaw damay wax ne baay mooy koo xam ne booy yëkkati ay parole de remerciement muy ay cant di koy jëmee ci moom sax boo ko tàggoo doo ko def waaye daa am loo xam ne munta ñàkk ku def lu baax rek faaw ñu sant la jaajëfal la ngir ñu man cee jànge yeewoo ci maa ngi doon dégg euh, Ibrahima Bakhoum formateur bu mag boobu doon wax ne Sud FM turu rajo bi mu ngi jóge ci hémisphère sud loolu ñi jàng géographie kenn du leen ko leeral mbokk yi kon maa ngi delloo njukkal Sud delloo njukkal groupe Sud communication ak entité yi mu làmboo yépp waaye di bàyyi xel auditeurs yi ak auditrices yi di ñaan yàlla yàlla gën leen dëgëral gën leen yokk ay moyens ba seeni projet ñu gën koo mën a réaliser damay wax ne ñu ngi wax télé sud télé sud waaye sax ki sama xam-xam bu gàtt li ñuy liggéey ci digital bi rek lu ci bëree bëri man na remplacer télé li ñu liggéey ci wàllu seen plateforme yu mel ni Facebook yu mel ni Instagram euh, surtout nag seen chaîne YouTube bi li ma leen di ñaan daal mooy buñ gënee man di yokk euh, yenn émissions yi ñu koy filmer di ko posté ci chaîne bi kooku moom dina gën a baax lool lool lool incha allahu rabbi ndeysaan sànq rek laa doon xool ci archive yi ba gis benn image buy wanee keroog bañ doon inauguré rajo sud ci teewaayu ay personnalité yu mag a mag ci àdduna bi ku mel ne président Abdou Diouf bi jiite woon Sénégal teewoon na ak euh, président ba woon ca Mali di alfa Oumar Konaré ak euh, Mouawiya Ould Sidi Ahmed Taya bi jiite woon Mauritanie ñu feggoo woon ak Babacar Touré mooy wane ni sud moom mësta doon lu ndaw te du masa doon lu ndaw incha allahu rabbi kon nag ñuy wàccee ndi suñu kàddu fii rek di wax joyeux anniversaire yàlla na yàlla gën a dëgëral gën a kàttanal gën a yokk moyens yi ba ambition yu bëree bëri ñu man koo réaliser jaa ngeen jëf wasalaam